gore bëggloo jënd xarum tabaski am seetal ñaata nga mën a am ci lii ci dëkk bi baax na dinaa jënd garab bi ak xar mi bu subaa su neexee yàlla salaamaaleykum soxna Kumba mbaa yaa ngi am tan bii daal amul benn soppeeku ci man xaaral bi ci kanam rekk di nga gis ne dina baax caam kaay toog fii damaa jaaxle ndax yàlla dina ma yóbbu àjjana at bi ñu ne dinañu am xarum tabaski bu rëy teel mën baal say bakkaar bu loolu weesoo jigéen ju baax nga te ay jëf yu baax doom nga doon def àjjana rek nga mën a dem wante yàlla xam na sama xol man mii de yàlla xam na am na lu bon li nekk sama xol yaay wóor na ma ne yoonu àjjana ubbeeku na te yàlla dina la baal say bakkaar yu weesu ak yii di ñëw teg la ci mbaaxam daajale teg ci yoonu jub amiin yàlla na ma yàlla baal samay bàkkaar bul sonal sa bopp ci wax yooyu wóor na ma ne yàlla dina la yërëm te yaakaar naa ne yàlla dina ma baal samay bàkkaar asalaamaaleykum Thiam dañ laa gisul tey ci jàkka ji lu xew dara damaa guddee wàcc rek waaw man day xibaar bu neex laa la indil ndaxte sëriñ bi nee na day yow lañ fal njiitu kii denc xaalis bi ndax ñëpp yow la ñu wóolu loolu day lu baax la kontaan naa ci trop waaw naka la sa yaayu jabar def ah mu ngi tane tane wolof rek. waa ndax seeti na docteur. ah yóbbu woon naa ko ci gisaanekat bi de. kat dama ni nga dem seeti docteur laa wax. waaw dinaa def loolu xam nga ne moom dafa am ay laajte dama bëggoon xam lu ciy sa xalaat maanaam daf may laaj naka la koy wóoree ne moom dina dugg àjjana. sa waay xam nga ni ñëpp koy génn àdduna. ñi daan jullee ko def lu baax dinañ dem àjjana incha allahu te képp koo xam ne sa jëf ju baax moo ëpp sa jëf ju boñ yàlla dina la yërëm hmm. waaye sa waay da nga may niroo ko yor xaalis de ah, tuuti rek waa sa waay dafa mel ni de liñ doon xaar si liggéey jàkka ji na xaalis biñ doon xaar ah loolu da si baaxul kay tax na ba kenn ku nekk war na saytu mbirum xaalis bi waaye nag ah yàlla baax na ndax lépp a ngi ci nit ñi ah man de bëggoon naa dimbali sunu sëriñ bi day nee na dégg na jëf tu baax ji nga xamante ni moom ngay def te nag kontaan na ci lool xanaa ma xool rek ndax am naa fi dara ah yal na la yàlla fay yàq sa njaboot jërëjëf waay maa ngi ñëw dem jërëjëf waay jërëjëf waa sa kon kon jërëjëf waaw xam naa xanaa ñu def noonu rek ñu def noonu ba ci fan yi rek baax na baax nuyul xale yi dinañ ko dégg bu baax arikalla alhamdulilah alhamdulilah arikalla Amen. asalaamaaleykum. Ah, ah, waaw maa ngi lay gajaga gajaga sëñ bi na ngeen def waay. Abdoulaye waaye indiwaatal naa la beneen tax ñu wurus de. waaw ah, jërëjëf Thiam. li ma jaayoon de bu weesoo bi baaxoon na lool. Hmm. waaw kon maa ngi lay bàyyi rek ba beneen waaw kon ñu def noonu ba. ok. xaaral ma woon la dara càmm xalaatal li mooy suñu jëf yu baax peese yu bon yi day misaal lu bon yu nag ci suñuy xol maanaam sàcc yeeg triyaan yéeg ak lépp lu nit mënul gis yàlla rekk moo ko mën a gis lii mooy bor bu ñu amel yàlla ñaata jëf yu baax lañu mën a def ngir dooleel peesekaay bi ah sëñ bi dëgg-dëgg waaw waaw xanaa yàlla xalalul yoon bi ngir ñu dem ci moom te am mbaalam am na lu amul morom lim ñu te jaarale ko